ñaari soxla amuñ ñett soxla benn soxla lañu am daara ji dox daara ji dox mooy sun soxla amul benn soxla sunu lépp rek ma ngi ayu ci daara ji dox nun ak yéen ak yëpp sunu mbir mépp mépp mépp ma ngi ayu ci daara ji dox bu daara ji doxee daal lépp dox nañ jàpp ci daara yi nañ jàpp ci daara yi rawaat nag doomi daara yi jaar ci daara yi doomi daara yi teraangi leen yàlla jox xëjul ci daara yi ndaw ñi daal ci loolu laa leen di woo sama moroom yi ñi nga xamante ni maak ñoom ñoo maase jamono liggéey bi dafa laaj ay loxo liggéey bi dafa laaj taxawaay liggéey bi dafa laaj yitte liggéey bi dafa laaj ak cawarte te loolu ci ndaw la nekk. Daarakoki TV la chaîne au service du Saint Coran télé bi liggéeyal yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku di wax ci turu meeru yi di nuyu jiital ci nuyoo bi sëriñ Maxtaar Naar Lo mu nga xam ni mooy nekk ci daara ji jiital daara ji di sunu lépp nga xam ni fu daara ji àgg tey li ci ëpp ci moom la moo ko fa àggale ci li ngeen fi wax lépp di nuyu madame la ministre Fatou Diané docteur di ko nuyu ak délégation bi mu àndal yëpp di ci tuut teg madame le gouverneur di nuyu monsieur le préfet représenté par son adjoint di nuyu monsieur le sous-préfet et son adjoint di nuyu le capitaine di commandant brigade euh, département Louga di nuyu région Louga plus tard di nuyu ñi fi toog ñëpp bàyyi mu kenn di nuyu président conseil départemental représenté par son vice-président di nuyu maire yi nga xam ne ñoo fi daje yëpp le maire de Thiamène maire Pétawarak maire Guet Ardo nga xam ne ñoom ñoo nekk ci arrondissement Koki yi di nuyu seen adjoint yi ak délégation yu ma àndal yëpp di nuyu aussi sama conseil municipal ñoom ñëpp ñu ngi fi toog les adjoints ak yenn conseils yi ñu ngi fii di nuyu autorités yi fi nekk yëpp bàyyiwuma kenn du nuyu ma Massamba Diop mooy président secretaire généralu association bi jël sama nuyoo mu jaaralal ma ko ci ressources sans daara yi nekk fii yëpp ci biir kër du nuyu aussi itam sama quelques wëllëre yoo xam ne ci daara ji leen nekkoon. di leen sant di leen gërëm ma gis seen action yi ñuy def ci daara ji ñu rafetlu ko lool même au delà daara ci biir dëkk bi ñu ko fay def di ku mel na As Ndaw ku mel ne Sëriñ Mbuub ku mel ne sëñ Basiru Mbàkke Xadim Awa Ba di sama lépp moom ba mu fi nekkee maag ñoom moom dëkkoon kon di ko sant bu baax gis li muy def lépp du nuy sëñ Ahmadu Mbàkke du nuy ñu fi nekk ñëpp ku lim dangay ngay juum di wax ni en tout cas li ma li ñu wax fii lépp ma dégg ko ci daara ji wax dëgg yàlla am na ci lu ci bari sax leen xamu leen ko ku mel ne sëñ Matar Naar Loor mii waxuma la ci xale yi li muy def ci xale yi de mais sëñ Matar li muy def ci biir dëkk bi ci askan wi bu ngeen ko xamoon bu ngeen ko xamoon da ngeen di kii da ngeen naan sax kii wàll yu la wala lan la waaye bëri na fii koo xam ne tey tey tey tey koo xam ne bu xëyee li mu fiy joxe ci dépense ci biir dëkk bi kii xel xamul lu mu toll kon yàlla na ko yàlla fayal. mi ngi dimbale néew ji doole ji mu ngi dimbale ñëpp di sant bu baax daara ji nag nun sunu sag la waa kokki comme ni ko chef de village waxee dama fàtt sax chef de village laa war na jiitu bi nga xamee ni mooy représentant sëñ Mouhabane Diop nga xam ni ñoom ñooy waa kër sañ kokki te lépp ñooma bu ñu demee ba daara ji samp ci ci ñoom la ci seen maam la kon di wax ni daal ñu ngi leen di gërëm bu baax di sant bu baax li ñuy wax nag alxuraan lu ci waay def doo ko réccu en tout cas ñun ñi nga xam ne ñoo nekk kooki moom réccu wuñu moom lu tax alxuraan ji def wax dëgg yàlla xéewal gu réy ngi biir kooki ku dëkk ñëwoon kooki ay année mille neuf cent soixante dix quatre vingt quatre nga xam ne xarkatu ko xar xarkatu mu kooki soppeeku bu baax kon ngeen war a xam ne daara ji nun nun waa kooki lañ ko defal ñu sant bu baax di leen gën a ñaax lépp lu waay man li may wax waa kooki lépp lu waaye mën war na koo mën a def ci daara ji yéen ñi du ma leen ko jàngal sax mais kenn ku nekk xam nga ni euh, nekkoon nga kooki nekkoon nga ci kër xam ngeen li fi nekk lépp kon ñaan yàlla yàlla yàlla jëme kanam en tout cas lu ñu mën ci daara ji luñ ci mën ak suñu xam-xam suñu doole sunu xel suñu wërsëg daañu ko def ci daara ji ñu ngi ñaan yàlla yàlla defal lu jàmm ba nga xamee ni ba nga xamee ni lépp loo xam ne luy doxal daara ji rek wax dëgg yàlla dana ci dana jëm dana jëm kanam di sant nag waa Koki aussi tam bu baax a baax ndax damay wax ni du ngeen fi dégg mukk waa Koki kenn koo xam ne ma ngay ñaxtu wala def dara jëmee ko ci daal ci xam nga ni ay xale la dëkkal ci xale fu mu nekk xam nga ne il faut ay ayib ak nekk nañ ci fam waaye ñëpp xam na ni jàng leen fi indi xale xale rek la mën a doon. kon ñu leen sant bu baax heureusement ba nga xam ne waa daara ji comprendre nañ ko. xam nañ lépp. ñu ngi sant yàlla bu baax di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp. yàlla na yàlla defal jàmm. jërëjëf. amul ñaari soxla amul ñett soxla benn soxla lañu am daara ji dox daara ji dox mooy suñ soxla amul benn soxla suñu lépp nag ma ngi ayu ci daara ji dox nun ak yéen ak suñu mbir mépp mépp mépp daal ma ngi ayu ci daara ji dox bu daara ji doxee daal lépp dox nañ jàpp ci daar yi na jàpp ci daar yi rawaat naag doomi daar yi jaar ci daar yi doomi daar yi teraang yi leen yàlla jox xëjul ci daar yi ndaw ñi daal ci loolu laa leen di woo sama moroom yi ñi nga xamante ni maa ñoom ñoo maase jamono liggéey bi dafa laaj ay loxo liggéey bi dafa laaj taxawaay liggéey bi dafa laaj yitte liggéey bi dafa laaj ak cawarte te loolu ci ndaw la nekk Daarakoki TV la chaîne au service du Saint Coran télé bi liggéeyal al Qur'an al Karim